sant ay santaane la ñu euh, santa ko ay tere mm. nañu ko jëfee noonu la ko yéen kaay gi di Walf Quotidien xëy fësal leen itamit loo xam yéen kaay gi di Walf Quotidien xëy gi di Walf euh, euh, xamle ne Khalifa Sall dafa warul sax Ousmane Sonko yam ci waaye dafa mm-hmm. war ab génération noonu la ko yéen kaay gi di Walf Quotidien xëy fësal réew mi quotidien waaw yéen kaay gi réew mi dafa xëy dellu soir ci dossier Ousmane Sonko euh, wax ne xeex bi jamono ji euh, euh, nga xam ne Bougane Gueye Dany yëkkati na ko wax ne fu mu toll la muy bëgg mooy bàyyi Ousmane Sonko bàyyi junne ak juróom benn fukk ak benn détenu politique yi nga xam ni jamono ci caabi mu leen féete ginnaaw Bougane Gueye Dany nag ma ngay loxo jiite réew Macky Sall di ko ñaan njëkk ngir mu bàyyi ko noonu la ko yéenekaay gi mhm. euh, di a jël noonu la ko yéenekaay fesal Abdoulaye yéenekaay geneen l'info waaw yéenekaay gi di l'info ne lu jëm ci Sonko ak i ñooñam euh, ak i départ ki nga xam ne président Macky Sall fi juróom-ñaari weer mhm. ak situation bi nga xam ne Sénégal ngi koy dund jamono ji Bougane Gueye Dany si yàbbi moom daal la muy woote moo di ak daal noonu la ko yéene kaay gii la turbine xëyee de l'histoire ci situation bi nga xam ne Sénégal mu koy dund jamono ji ci wàllu économie euh, wax tamit ci prisonniers yi nga xam ne dañ leen tëj ci politique euh, kaso ndax politique mm. euh, moom Bougane Gueye nag ma ngay saako si njiite réew Macky mu wane di ko ñaan njëkk mu bàyyi ki nga xam moom di Ousmane Sonko ndax tax muy sa mu ñaa daal njëkk président Macky mu la dawal ndimbal ak yërmande la muy xaar si moom daal mooy mu bàyyi ki nga xam moom di Ousmane Sonko ndax Sénégal bukkuñu mu dem euh, bàyyi fay xeex li bëgg daal mooy mu dem bàyyi bàyyi Sénégal si jàmm noonu la ko yéenekaay gi di l'évidence xëy Fesal Abdoulaye Seydina Omar Ba yéenekaay gi di yor yor bi yéen gii di yor yor moom dafa xëy amal ab taxaw seetlu jëmale ko ci élection présidentielle 2024 dañuy dëgmal yéen ne a a a kaay Ba critique gii ne neexul ba neexul waaye parti parti bi mhm. eh, eh, wala coalition Benno Bokk Yaakaar fu mu toll ñu ngi ci ak pëccëxoo

ji na noonu la ko yéenekaay gii di l'observateur xëyee fësale yéenekaay bi di euh, le peuple le peuple quotidien dafa xëyee dellu siwaat ci mbiri Fama Koundoul di soxna sosé nga xam ne nii dafa ne woon na mes na mes euh, ba noppi wax ne dafa am ñu ko téye euh, Mama Koundoul nag ndax dafa wanoon lor mm-hmm. loolu la kasi li nga xam ne ni moo di njàqare nga xam ne le peuple am na ko mu ngi ci yéenekaay yi kon Ablaye yéenekaay bi di libération jógagu waaw yéenekaay gii di libération ne kawteef mu am ci mbiri Mama daal di koy takk ci biir ba ngir won ay mbokkam ne dafa ëmb te fekk ndaw yu dëkkee ca Fass Boy wàccoon ci mbedd bi doon manifester ne fu mu toll ne ak daal am na si waaye daal nañ jàpp ne la nga xam ne jot nañ koy jàpp mu nag ñoo nga ko chef de village ba nee na Fass la fa faatu jamono ci ay doomu aadama toll na si juróom-ñaar fukk juróom-ñaar fukk mën nga ko suñu lamp